di leen amal ay jotaay spécial yoo xamante ni dañu koy jagleel weeru koor wi ngir jullit bi mën cee koo ci wàllu nekkinam loolu nag moo sabab tey ñu am benn jotaay spécial boo xamante ni dañ ko fas yéene ànd ak yéen jotaay bi nag ñu fi ko ak ki nga xam ni moo di Serigne Mbacke Lo Mouhamed Touba Daara Khoudous ñu fa yéene waxtaanee koor ak la ci aju lépp na weeru sell wi nga xamante mooy weeru koor ak li nga xamante ni moo ci aju euh, kon Serigne Mbacke ginnaaw bu ñu nuyoo ziar la ndokkeel la jaajëfal lu baax a baax dañ lay jébal kàddu nga nuyoo rek soo nuyoo nag ñëw ci li nga xam moo di waxtaan wi Serigne ñu ngi nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci sunu jotaay bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Euh, jërëjëf Serigne Mbacke ci nuyoo bi ñi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm euh, ci ni nga xamante noonu nga nuyoo ak mbokk yi mu mel ni Serigne Mbacke dañoo nekk ci weer woo xamante ni euh, weeru am solo la muy weer woo xamante ni suñu yaakaar tey ëllëg di seexul xaddiim mooy weer wi ko gënaloon ba tax mu doon sadd ay béy di ko jëmale saa yu doon dëgmal si ñu bëggoon a xam lan mooy weeru koor ak kan mooy ki nga xamante ni bii moom la moo moo war a woor weeru koor. jërëjëf sëriñ Moussa nit nga ko waxee day weer woo xam ne sëriñ bi ci eh, ni mu daa doxale ak ci ni mu daa yaree ak ci mbind mi mu fi bàyyi ñëpp xam nañ ne mooy weer wi ko gënaloon muy weeru koor loolu nag dana ñu may tuuti ñu wax koor ci boppam ak ngëneelam ndax daata la muy doon rek weeru koor koor ci boppam dafay lu sunu borom subhanahu wa taala fonk lool ndax yonent bi saa ko nettali ne suñu borom nee na jëf yi doomu aadama bu mën di doon moo ko moomal boppam waaye nag koor moom man yàlla maa ko moom man maa koy fay xëy na borom xam yi dañ ko firee nu bare bare waaye am na ci ñoo xam ne dañu ne suñu borom day wax ne jëmmi ak coono ba ca nekk ak yitte ji doomu aadama def ak sell ga laaj kooka moom nee duma ko féetale kenn moom man maa koy téye sama bopp waaye koor day loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ngir wax rek eh, am solo gi solo mm, ci xadis boo xam ne wér na nee na ni mu mel ak sunu borom subhanahu wa ni mu ko fonke dafa xam ne doomu aadama ji bàyyi na bànnee lépp ngir topp ndigal sunu borom subhanahu wa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na eh, am na bunt boo xam ne ar rayyaan lañ koy wax nee na ñi daa woor du suñ dee tabbi àjjana itam danañ jaare beneen bunt bu dul boobu waaye bunt boobu yàlla mi ngi ko jagleel ñi nga xam ne daa nañu woor nee na su yomal xiyaamee dañuy woote naan anaña daa woor ñuy tabbi tabbi ba jeex na ne keneen kurul ñoom du ca bokk su ko defee ñu daal di koy tëj loolu koor la wax koor rek ca gàttal waaye nag koor googu itam dafa am leneen lu ci gën a ràññi ko muy weeru koor ndax weeru koor moo gën ci weer yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ci soññee lool danañ su saabaan Moussa kii ba weeru koor di ñëw danaan weer a ñëw woo xamante ni am na ci guddi gu gën eh, junni junni weer genn guddi goo xam ne gën junni weer daan ne ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax sallallahu alayhi wa sallam daan wax itam ne képp koo xam ne woor na weeru koor ngir gëm yàlla mi ko digle ak sàkku ci tuyaaba sunu borom jéggal ko la jiitu ci bàkkaaram ak la ko mujj wax na itam koo xam ne dana ko taxawe muy tudd yàlla yi ñu ci def muy naafile yi ñu ci def ci guddi gi wax ci lu mel noonu ne ku koy def ngir yalla ak sak ci tiyaba ba tay niki noonu yalla dana la jégal la nga njëkk a def say bàkkaar ak la nga la ngay mujj a def loolu mooy euh, comme euh, koor ci boppam ak weeru koor weeru koor nak suñ ko waxe suñ ñe weer kon niñ ko da fay teunku ci weer wi nga xamné mom lañ wax ñun weeru wolof euh, muy su weeru barax lu euh mo xam ñaar fan ak juroom ñent ñu gis weer wi wala gis ñu ko ñu mottali fanweer yi kon dañuy tambli aw weer lolu moy weeru koor weer woowu nak farata la ci ñu woor ko farata mooy koo xam ne maanaam sart yi ñuy wax matala na matala nga ko kon da nga ko war a te keneen itam munu koo def ba mu wàcc maanaam kenn munu koo defal moroomam loolu sunu boroom a ko wax ci alquran ne yéen ñi gëm farataal nañ ci yéen koor ni ñu ko farataaloon ci ñi leen jiitu yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum kon farata la léegi nag farata ji itam suñ koy wax ana ci kan la doon farata ginnaaw ba ñu xamee ne farata la joo xam ne jëmm ju nekk daf koo war kenn mënu lu koo def muy sa ndey muy sa baay muy sa ab sëriñ mënu la koo defal ci sa place kon yow mi mu war yaay kan dañ naan jullit bi nga xam ne majeur na te amul ngant muy ngantul feebar wala koo xamante ni day nàmpal te ragal euh, xëy na lor ci doom ja wala menn màggat mu egg fenn fi su dul loolu dafay koy war waaw beneen bi nag mooy kii nga xamante ni day day woor euh, di tukki su fekkee ne tukki ba day tukki boo xam ne sariya nangu na ko te coono mën ko caa fekk itam may nañ ko mu mu bàyyi wala boog mu noppalu nga xam ne daf koy leb su weer wi jàllee mu fay ko waaye foofu itam suñu déggee nii alquran waxe koo xam ne dafa nekk ci euh, euh, tukki xëy na booba coono yeeg mel noonu waaye dafa waxoon su ngeen wooree moo gën wa an tasuumu xayrul lakum su ngeen waree moo gën ci kiy tukki ca jamono jooja rawat nag jamono jii nga xam ne mën na am coono bi dootu bareeti noonu kon nañ jàpp ne euh, dëgg la am na ngànt li ñuy wax ruxsa yolomal nañ ko ci mu mën a euh, lépp waaye su ko wooree moo gën kon ki nga xam ne majeur na muy xale bu góor bu dëgër euh, ak mandargay majeur yi moo xam dafa am kawaari poqutaan ak yu mel noonu mbaa mu gént su dee soxna si moom itam lu mel noonu mbaa mu gis baax te itam feebarut tukkiwul doonul koo xamante ne day nàmpal doonul màggat mu egg fenn fi kooka woor da ko war woor nag su ko waree kon kañ la koy tàmbalee war maanaam su weer wi feeñee nañ jàpp woor war na ko ginnaaw bi nag weer mën naa feeñ ba mu am leneen feebar wala mu gis baax ak yu mel noonu waaye daal weer wi feeñ na na yéene fa séenee weer woor ba keroog weer wi di jeex foofu nag danañ bàyyi xel ci eh, léeg-léeg ñu bare bari dëgg la danañ ko jafeel ba mu ëpp ñenn ñi tam dañ ko yombal ba ëpp waaye mën naa bañ a demee noonu luy mën naa bañ a demee noonu mooy sunu borom moo méttilu diine ji moo ko wax wa ma jaala aleykum fi diine min xaraj ne yuridu llahu bikum lisra rek wala yuridu bikum al usra yàlla dafa bëgg rek euh, lu jàpp lu ci yéen ndax yàlla li gën a soxla mooy doomu aadama ji ak muy defee yéene ak sellal kon foofu li ma bëgg a wax léeg-léeg am na ci ñoo xam dañ bés fi ñu nekk léeg dañuy tifli yu bare bari jàpp lu ci jàll lu mu mën di doon rek yàqu na ñenn itam euh, wax dëgg yàlla nañ ko yombal mu ëpp ci comme ñaari farata yooyu ñuy wax rek ndax sëriñ bi comme ni mu ko waxee ci tasawur sigaar siyaamuna lahu faridataani bila ziyaratin wala nuqsaani dafa wax ne na wa kafuna an muftaraat benn mooy dañuy yéene ñaareel mooy ñu bàyyi luy dogloo euh, luy dogloo yi ñu bare bari dañ ci dégg rek mooy bàyyi lekk ak naan mu jeex waaye foofu dama bëgg ñu delluwaat tuuti ci njàngaleem sëriñ bi ci boppam ak euh, li ñuy wax euh, euh, tasawuf tasawuf léeg-léeg li koy gën a yitteel mooy fa nga xam ne fiq munu munu faa egg moom mu egg fa ndax fiq day atte ba am ab ñëpp la mooy liy feeñ ci jëf moo tax soo dee gis jaam yàlla gu muy naan bëgg nañ bala ngaa tàmbali nga yéene foofu lay yem waaye yéene jooju na ko tàmbaloon mu sell mu continuer ba jëf jëpp jeex loolu lay tasawuf di jàngale maanaam dañ naan la bul ci boole bokkaale bul ci bokkaa bul ci boole euh, ngisal boole ci bokkaale mooy def keneen di tax maanaam ba nga def nga ci tudd keneen wala nga ci jublu su dee ngisal nag mooy def ko di ci sooraale keneen bëgg nit ñi di def leneen kon yéene ji fañ koy tàmbalee mooy balaa euh, waxtu jàpp li ñu naan jàpp jot na waxtu woo bala moo jot nga def ci sam xel ne fas naa woor weer wi te yàlla tax loolu foofu lañ foofu lañ njëkk tàmbalee waaye nag yéene jooju laa wax ci njàngaleem sëriñ bi ak ci tasaw dafa war a di continuer waaw nga xam ne waxuma la comme su noonu ngay defaat déedéet waaye yéene ji bis bi du doog benn yoon la ngay def ci weeru koor gi ci li ñu loo xam ne dañ ko tudd ci kanam yëpp yëpp da nga ko te yàlla rek tax nga xam ne da nga ci yemale ñëpp fekkoon la ca ak ñëpp euh, maanaam dina ca ŋàññ loolu kon war nga ko bàyyi xel ci yéene bi ñaareel mooy li ñuy wax bàyyi liy dogloo bàyyi liy dogloo ci euh, ñu bare bari dañ koy dégg rek mooy doo lekk doo naan doo jaxasoog jigéen dëgg la waaye soo gisee sëriñ bi ni muy jàngalee da ngay xam ne weesu na foofu ndax euh, mi ngi waxal boppam ci gu Jinaan ne woor tënkuwul ci ñàkk lekk ak ñàkk naan ndax nee nañu bare bare loolu wóor na leen ba nga xam ne mën nañoo woor ba noppi duñ ci am lu may xiif ak mar ak mar fa saimin ma al jamaa laysa lahu fiihi siwal majaa nee na woor تباي ما نليت يدقنا هنا فصوم أن يصوم كل عضو عن كل ما يفضيفة لسهوي ورموي نقف غب كير بوم ما ندون تسيجر دودف لو اللي واخد جمود دودف لود النونا كن لولو موي ليه خمنت موي تا نيو نيو دك سبوبا وخنا فينا سام خل مخير سام خل لموجي دهنا بول خال لو حرام بول كو دقلو بول كو واخ بول دخ جمته ak itam bul ko xalaat ak bul ko xalaat moo tax Ibnu Arabi waxoon ne euh, Imam Ghazali sax waxoon na ko na koor day ñett kooro amat naas yi mooy nit ñi ñëpp rek seenu koor mooy du lekk du naan du jaxasoo jigéen fii nga xamante ni la fajar di jote ba di jant di fenk am na ñoo xam nag seeni koor dañ naan euh, loolu dëgg la waaye dañ ciy boole ba euh, cër yi duñ ko def maanaam dana fexe ba du wax lu dul noona neen dana fexe ba nga xam ne du ko déglu dana fexe ba sax du du ci jëm loolu lay doon moo tax yonent saa waxoon ne képp koo xam ne bàyyiwul waxi neen ak jëfe ji yàlla soxlawut lekkam ak naanam ñàkk a lekkam ak ñàkk a naanam man lam yada nazuur wal amal bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yada fi an yadaa taamahu wa sharabahu kon loolu lu ci am maana la mooy ki bu ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ñi ngi jéem a sellal su dee nag xaasul xaas yi mooy góor yàlla yu dëgg-dëgg seenum xol la ñuy tëye ak seenum xel ba nga xam ne seenum xel ak seen xol maanaam du mën a xalaat ne nekkuñu ci yàlla nga xam loolu dañ koy tàmm ba nga xam ne fu ñu toll euh, seenum xel du rëcc benn yoon te du màmm euh, alladina ida ida massahum taifu min alcheytaani tadakkaru fa idahum mubsiroon kon loolu mooy ñetteel bi te mooy mujj bi sëriñ bi nag tarbiya bi mu tarbiya ne nii ci mujj boobu lañ mujj la bëgg ñu jëm ci maanaam dem ba nga xam ne dañuy tëyee seenum xel te loolu ab xol bu ñu laabal xol bu ñu sellal moo ko moo ko man mooy laabal xol boobu loolu nag moo tax yonent bi sallallahu dafa dafa diglee koor ci noo xam ne suñ ko toppee mën nañoo am loolu te bu dëgg-dëgg mooy ana nan nan la ñu woore maanaam li ñuy wax temps yonent dafa dafa bëgg nit ñi ñu gérer seen seen temps seen jamono ñu xool ni koy lijjantee ba nga xam ne lépp luy ñu roog ay mbóosóor wala ay caaxaan du ci bokk masalan euh, dañuy joxe euh, exemple rek dañ naan la lu demee ne lido baaxul dëgg la nag xaraamul ci koor su fekkee ne maanaam lido bi euh, doonu loo xam da nga ci def xaalis du carte du du indi ak jaxasoo itam du indi ay werante kooku xaraamul su baree nag dañ naan sànq temps waaye xaraamul waaye déedéet dañuy weesu foofu dañ naan la da ngay xool yow ba xam jamono ji nga koy def est-ce que amutoon lu ko gën a yella soo ne ah kay rek ñu ne kon bàyyi kon bàyyi loolu moo wax ci nan la ñuy gérer temps léegi moo tax mag ñi ci niñ daa tarbiya su dul woor ci boppam dañ leen di jàngal yu bare bëri yoo xam nga xam ne day tasewaat ci biir koor maanaam benn mooy fukk mooy ñàkk nelaw guddi lu bari ñaareel mooy xiif ñetteel mooy wéet ñeenteel mooy noppi ci lu lu am njariñ te loolu lépp ci dafay dajee ci koor ndax koor moom su dee su dee xiif moo tax ñuy wax ndax da ngay bàyyi lekk dangay ngay bàyyi naan dañ lay tere xëdd bu bu bëree bëri dañ lay tere eh, dog bu bare bari dañ lay tere naan ndox bu bëree bëree bëri sëriñ bi sax dafay wax naan am na ci ñoo xam ne dañuy lekk dañuy mel ne dañuy na ma yàlla jégal waaye dañuy dañuy dañuy nokkas seen biir bi ni ñuy nokkasee ab saako bu mujj dañuy mel ne aw nag wuy lekk mu nga xam ne nee day mujj kon su boobaa bër biir bi day fees biir bi su feesee day daal di tàyyeel nelaw lay bëgg mbaa boog mu nekk ci ay caaxaan moo tax sëñ Amadou Ndiaye ngeen day wax lu am solo naan reg réglé dana jafe te reg réglé dana jafe kon xam nga loolu dana tax ñu koy bañ léegi nag kon bi njëkkoon ci suuf bëgg am na am na ci koor Euh, xiif ñaare mooy fukk mooy ñàkk nelaw guddi lu bari soo gisee niñ koy defee ak naafila yi ñu ciy digle xam nga jamono ji nga xam ne balaa naafila ga bare 10 heures jot nga war a yeewaat fajar ak diggante bi su fekkee ne war ngaa def tahajjud yeneen naafila yi nga ci def mën naa am la ngay du bari suñ ne nag noppi waxuñu nga bañ a wax waaye mooy nga bañ a wax neen waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam laajoon na ko jën jëf moo gën mu ne an tamuuta wa lisaanu ko ratbun min dhikrillah min dhikrillah nga noppalu soo demee bay faatu fekk sa làmmiñ mi ngi tooy ci tudd yàlla maanaam mooy nga tàmmal sa bopp tudd yàlla loola euh, dañuy loo xam dañ ko teg sa ci sa place euh, bu mujj bi euh, mooy wéet gi gis nga maanaam benn xiif boobu ak ñàkk a jotadi ku ko def munoo munoo munoo munoo munoo ñàkk a wéet wéet waxuñu ci da ngay nekk ci benn koñ kenn du la fekk waaye foo nekk sam xel mi ngi suñu borom subhanahu wa taala ak donte yaa nga nekk ca biir marché ba kon yooyu yëpp dama jàpp ne amul sax jàpp ne waaye lu wér la mooy koor daf koy def te ni mag ñi noonu lañ daa tarbiyaat di ko tàmbali balaa koor a ñëw su ko defee nag suñ la chargé ci noonu ni ñu ko def moo xam yaa ngay jox heure sangam ci alquran heure yaa ngi koy def ci tudd yàlla sangam yaa ngi koy jàng wala yaa ngi koy dem ca euh, jàkka ji di déglu conférence yi sangam yaa ngi koy dem ci naafile yi su boobaa li ma wax ci gestion problème mu temps da ngay mën a gérer xam ne temps boobu lépp lépp yaa ngi koy def ci tudd yàlla wala yaa ngi koy def bokk ci lu baax loo xamante ne la jural euh, njariñ kon loola mooy mooy gestion maanaam mooy ni ñuy lijjante waxtu euh, ba nga xamante ni leneen du ci rax soo ko defee su boobaa lañ tax ñu ne wax wax koor dëgg day am ci biir beneen bi tey dem jërul di fàtte mooy euh, man gee euh, joxe waaw ndax yéen saa nee nañ tabe woon na lool waaye nag rawat na su weeru koor jotee loolu itam dañ koy wax ci sëriñ bi dañu sëriñ bi sax danga ko xamee ci xar kanamam su weeru koor jotee day belli lool joxe gi itam rawatina ci weeru koor loolu itam dafay lu am solo ndax koor dafa am lu baree bari lu muy jàngale euh, soo gisee sunu borom naan laallakum tattaqun ja ci topp ngir ngeen mën cee am ragalu yàlla euh, ngir am xel ubbiku maanaam biir lay tëju ngir am xel ubbiku biir lay tëju ni ki su fekkee ne xiif na te ba di doon xiif bu mettee métt bay miir ba nga xam dootu xamante lu muy def dana bari ci lu mu koy dimbali ndax benn dana xalaat ne am na ci ñoo xam ne lii mën naa am yàgg na leen dal ndax danañ xëy duñu am añ mbaa danañ dem ba ngoon duñu am reer mu xam xiif ak na mu méttee loolu dana ko ba jar bàyyi loo xel ci jaamu yàlla yi mu tane loolu itam xëy na dana ko tax di jox lu bare bari loolu nag kon daf koy dimbali ci mu xam ne yàlla mooy war wërsëgale yàlla mooy séddale du caagi ne ak góorgóorloom wala yaa fa suñu ci des kon waa day ñëw foofu ndax taqwa mooy la ko yàlla digal te la gën a jafe ci moom muy ñàkk topp maanaam bànneexam xam loolu daf koy daal di mën def muy ñàkk topp bànnee xam ndax du topp bànnee xam ci regg du topp bànnee xam ci coow lu bari du topp bànnee xam ci maanaam jaxasoo ko jigéen ndax maanaam li nga xamante ni moom da du amati kàttan googu ak cawarte googu loolu taxoon da nga ci bàyyi xel sëñ Moussa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na waxambaane yi nga xam dañ cee toll te sawar te amuñu lu ñu lu ñu takkee soxna nañu woor ko dañ ko tëj loolu itam su ci amaate mooy dal gi ma doon wax ak réglé gi ba noppi nag leen li mooy fàttaliku xel ñi nga xamante ñoo leen di tane kon da gisaat ci biir yeneen yoo xamante dafay am ci ci koor kon loolu daanaka dafa ñuy mën a tënkal ci nan lañ koy defee hmm. maanaam koor ci gàttal su ginnaaw sell ga ba mu amee hmm. ak def ga rek ca yàlla tax ba te loolu la taxoon yàlla naan maa ko moomal sama bopp maa koy téyeel sama bopp maa koy fayal sama bopp hmm. du ma ko jox malaaka mu koy lijjanti wala wala nabi man maa koy tegal sama bopp kon ñu dégg ci ne kon moom bokkul ci nga xam dañ naan la soo defee benn da ngay am fukk wala da ngay am juróom-ñaar téewul bokkul ci yooyu moom kenn xamul fu mu yem loolu dañ ko wax ci maanaam jeexit bi mu am ci jullit waaye euh, loolu nag dama ne su amee ak noonu mu méttee maanaam nga lijjanti ko ci sàmmonte ak charte yi ñu waxoon benn mooy jaxasoo gi ma la ko euh, lekk gi waxuma la ko naan gi waxuma la ko waaye lépp loo xamante ni dafay nuroog tere suñu borom bi da nga koy bàyyi moo xam ci nopp lay jaar wala ci bët lay jaar wala ci lamiñ lay jaar wala ci loxo mbaa cib tànk مجلس الميلان نعم، امسك عن النظر للحرام والسمع والبصر والكلام والمشي والبصر والكلام وكل فكره رديه كما امسكت عن اكل وشرب علماء من نيغا نياك لك نيغا نياك ناني نونغ تي سبت آه، سولا مين ساي نوبو اك ساي تانك نونغ كو تي دار لول نونو دو جا تابي لول نك آه، موي كور بيغا خن موم سون بوروم بڬ واي تام دا فا ام نينن نونكو بڬي موي كون من نيو دوجو سي آه، لان لا جيخدال سي اب جوليت xam nga suñu borom ba dane laallakum tattaquun ngir ngeen mën cee am ragal yàlla ngir ngeen mën cee am ragal yàlla ragal yàlla nag dafay tënk lépp gis nga imaam ali mu baax ma ba mu koy wax dane mooy al imaanu bil jalil wal amalu bi tanzil wa rida bil qalil wal istidaad lil yawmi rahil mooy da ngay gëm yàlla gëm yàlla bu wér a wér yàlla nag bokkut ak ñun niñ jàppee rek tawxid mooy da nga naan yàlla kenn la ashadu an laa ilaha illa gën naa gudd lool soo gisee sëriñ bi li mu wax tey maam sëñ ba nett li ko ci téeréem neena na maqaama ba gën a kawe fi mu toll nii nii mooy fexe ba saxal tawxiid ci xol yi waaw maqaama lu mu rëy rëy rëy boo ci boobu moo ci ëpp doole maanaam mu na nay dem fanaane fu nekk ñëw nay xam lu bare ka ñëw waaye li ci ëpp solo mooy ku la ëppale tawxiid moom moo la ëpp maqaama daana itam cër yëpp dañoo am lu leen di dundal am fu ñu dëkk waaye nee na tawxiid moom mooy dëkku euh, xol xol na dëkk ci tawxiid muy wéer de suñu borom te du ko booleeg lenn lenn lenn foofu nag maanaam koor da ci won lu bëree baree bëri bëri ndax benn doo wax rek ne yàlla moom moo bind ñëpp amul fu mu tàmbalee amul fu mu waaye loolu dafa am lu su fekkee ne yàlla moo bind moo moom da xam ne moo war a digle soo xamee ne moo war a digle da ngay jëfandikoo ay ndigalam yooyu moo tax ñu naan gëm dafay wax ci làmmiñ mooy nga wax ne gëm naa di fas ci xol waaye nag di jëf ci cër cëf yooyu cër yooyu moo koy firndeel waaye nag yéene ja mooy njëkk ak fas ga ma noppi moo tax sallallahu alayhi wasallam waxoon ne yàlla du xool seeni jëmm ak seeni col waaye seeni xol lay xool mooy xol yi la muy fas waaye nag ak cër yi ndi koy jëfe te di ko dëggal mooy inna allaha la yanzuru ila ajsaad ila suwarikum wala ila ajsaadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum kon loolu mooy foofu nga lañu njëkk a tàmbali ci taqwa waa ngay gëm yàlla kon ni ma la waxoon gëm yàlla googu nag ana lan lay lan lay dimbale mooy waa amalu bi tanzil maanaam jëfe li yàlla digle nga xam ne su sunu borom waxee rek nga jëf soo dama koy wax lu bare bare ne murid léeg-léeg dañuy wax comme ci julli géej gi ñu koy réel lool waaye fa mu lalu itam dañ ko dul wax léeg-léeg mooy sunu borom moo ne inna salaata kaanat alal muminina kitaaba mawquuta kitaaba mawquuta ne julli dafay ci jullit ñi waxtu day farata joo xam ne dañ ko wutal waxtu sëriñ bi loolu la xamoon julli gi nar a jàll ci moom mu ne man gisatuma ci adduna lu ma jaral julli gi di jàll te du ma ko te du ma ko def loolu rek la daanañ wax ci lu gën a jege loolu sëñ Abib mu baax mi wax nañu ne bañ ko fi naree defal euh, defaraat bëtt ngir cataracte waaye comme xam nga dañ koy defar ay nangam fan te du mën a sukk su jot mu ne gisatul ci adduna lu ko jaral ba baña sukk su jot ay nangami fan ngir bëgg gisaat ne loolu jaralu ko loolu loolu tawxiid la mooy wala amalu wala bi tanzil mooy jëfe lu yàlla wax loolu dafay dafay firndeel loolu ci biir taqwa lay dugg bi des mooy wa rida bil qalil lu la yàlla jox nga doy loo ko lu la yàlla jox nga doy loo ko dana tax ba doo iñaan dana tax lu yàlla jox doomu adama nga yéene ko ko te yàlla tax loolu xam naa dafa gudd moo tax nañ koy yemale foofu ñeenteel bi te moo ci mujj foo toll da ngay waajal bis bi nga xamante ne ci ngay wujj suñu borom subhanahu wa taala mooy wala istidaadu li yawmi rahim moo tax sëñ Tuubaa ko daa wax naan maanaam dëgg-dëgg waajal de mooy nooyi gu goo nooyi nga yaakaar ne du desiwaat waaw moroom yi du desiwaat moo tax muy wax naan maanaam doomu aadama yi la gën a rëccu suñu xasee dugg ci bàmmeel mooy liñ fi nekk woon duñ bëgg lu desiwaat ngir ñu jëfaat fi donte as caa la ñu jëfaat fi leen mën a jariñ ndax du du lu tuuti loolu mooy taqwaa googu taqwaa googu nag maanaam ku defee euh, koor ci niñ ko waxee léegi ci sellal gi ci yéene ji ak ci téyewu gi taqwaa googu ngay am day mën a firnde wu fu bare bare bare mooy euh, muñ da nga koy mën a muñ waxuma la muñ sax ci maanaam euh, lekk ak naan waaye dangay ngay muñ ci ay lor yu bëree bare bëri doomu aadama yi ak euh, xëy na seen i lor yi nga xamante ni moom lañ def ci seen làmmiñ wala seen i jëf sallallahu alayhi wasallam waxoon na su fekkee ne am ngeen benn jafe-jafe nit wax leen nangam nangam na wax inni saayimun rek inni saayimun man maanaam ku ku woor bu mu bu mu bu mu mu caaxaan su fekkee ne kenn nag xuloo naa moom mbaamu mu kéeg yu mel noonu na ko ah, man jégal damaa woor su boobaa da mun lor doomu aadama yi kenn kenn du la jaaxal boobu bokk na ci ci xeetu lor yi ñuy muñ waaye am na weneen lu ñu muñ ci lor mooy euh, neex bakkan ci ni mu bëggee moomeel ci ni mu bëggee nooflaay ak ci ni mu lu sedd maanaam loola euh, dana la ci dimbali bu baax a baax ndax li mu la ci dimbalee mooy fanweeri fan mbaa ñaar fan ak juróom-ñeent soo ko tàmmee maanaam doo lekk bëccëg gi lépp te fi ne mu ngi toll ci fukki waxtu ñeent am na fukki waxtu nga ci mën a am loo mën a lekk te leen da nga koy nelaw maanaam diggante soo fi lekkee daanaka bala ngaa mën a lekkaat war a mën a xëddaat te itam dañ la wax ne bul lekk lu lu bari wa baaduhum yaakulu aklal baqari waxta futuuri waxta saxari loolu lay bañ su boobaa dana dimbali ci nga mën a am beneen régime booy mën a jël régime boo xam ne dana noppal benn saw yaram dana la may ak wér gi yaram waaye dana noppal sam xel itam ndax dañu wax naa ne su maanaam biir su feesee rek am xel muuru te itam su feesee itam xol itam day day day day muuru kon neex boobu nga bañ a topp ci lekk gi ak doonte lekk lu dagan la waxuma nag lekk lu xaraam moom beneen affaire la moom ndax bi nee euh, loo lekk rek da nga def lu mel noonu soo lekkee lu dagan def lu dagan soo dekkee safaan ba itam def safaan ba kon maanaam bo loolu itam da ko ci da ko ci jur am na beneen bu mu jur mooy ci sunu nekk ñun suñu diggante mooy bëggante gi am da gis su weeru koor wee nit ñi ak seen balante ak yeeg di seetanteeg joxante ay tendrement ak xeet yu mel noonu nga xam ne lu mu nuru nuru lu néew lu am maanaa la ndax sallallahu waxoon na ne ku dogal euh, ku woor yàlla dana ko may comme koor ka woor te du yàqal ka woor ci kooram dara du ko ci wàññi dara loolu xeetu bëggante loo xam dana ci am beneen bi ci rattaxal diggante bi mooy gis ni ñuy fonkee julli ci waxtu yi julli yi ci jàkka yi naafila yeeg yu mel noonu dana am ñu bare danañ ci xamante danañ ci gën a mën a jàppalante bu baax a baax waaye itam li ci ëpp solo mooy ni nga xamante ni moom lay dëkk bi di dundewaat di dundawaat xam-xam di dundawaat diine ndax da gis ne ajjuma yëpp a jam daanaka jumaa joojam ñu ngay def ay waxtaan am na ñoo xam sax daanaka bi set la ñuy def nga xam ne dañuy fàttali ko seen diine ndax xam ne dañoo xam ne diine dañ koo war a xam doog ko mën a jëfe te loolu diine loo gën a loo gën a xam da ko gën a bëgg ndax da xam ne yàlla defu ko ngir njariñam moom waaye ngir sa njariñ la kon yu bare bare la yoo xam ne mën nañoo jàpp ne dana ko jeexi dal ci jullit gi jullit bi moom rek moom rek mu mën a laabaat mën a yarwaat mën a notaat bakkaram waaye dina ko defaat ci diggante jullit ñi seen biir ñu mën a gën a mën a bëggante gën a mën a yërëmante gën a rattaxal seen diggante ba la nga xamante ne moom la suñu borom bëggoon ci ñoom muy waatasimu bi hablillahi googu mu mën a am te benn jafe-jafe am ndax da leen di yokk ñoom ñëpp du wàññi kenn dara yaakaar naa sëñ Moussa ci gàttal mooy li nga xam ne tënkoon nañ ko ci koor ci mooy lan ci liñ koy defee ci kan la war ak li nga xamante ni mën na koo jur ci ay njariñ ci nit ci jullit bu nekk ak ñun ci suñu biir ñun jullit ñi suñu diggante ñun ci sunu biir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf Serigne Mbacke euh, xam naa laata ñuy jeexal euh, li fi mu bëgg rek muy gis nga li nga wax ci ay tomb yu am solo yoo xamante ne mooy jeexitalu ci doomu aadama su fekkee woor na ni mu war a woore mu mel ni kon ay jëf yoo xamante ni doomu aadama bu nekk jar na nga bàyyi ko xel bu baax a baax ndax suñu seetloo li nga wax ak ragal yàllaa ngi ci aju. li nga wax itam ci biir japp na ni xel mu muccu xel mu sel war naa mën a ci doomu adam bi nga xamni da nga wor waye itam wax nga nu ci biir euh, koor ni ndekete ci lañ war a yërëmante ci lañ war a gën a mën a jéggalante ci lañ war a gën a nag mën xel ñi nga xamne euh, suñu borom da dogal ñi ay way ñaak ndax euh, lam lam ko waxon so gisé kuy ñaan bul ko gëdd so gisé ko xamante da ñëw di sakku si ak lu mën doon bul ko gëdd ndax doomu aadama bu nekk yàlla moo la def la mu doon kon su fekkee loolu am na te tey euh, suñu euh, génnee ci koor gi day mel ni suñu comportement koor gi bàyyiwul ci ñun dara jeexital yi nga wax ni moo war a ne ci ñun du bàyyi ci ñun dara kon léegi euh, nan ngeen ko mën a jàngate ak tey fan lañu war a tegu yàqu-yàqu boobu fan nga yaakaar ni fa la amee. jërëjëf mooy li ñu waxoon léegi koor dafa war a doon mm, daanaka ni jàngate mooy répétition. day mel ne dañ ciy waajal seen bopp ngir dund gi lépp sunu borom mën na ko def muy muy muy at mi lépp waaye loolu dana metti ci nit ñi te wut na seen njëriñ lay doon waaye nag wenn weer ci li jaadu ci fukki weer ak ñaar mu des weneen fukki yeeg benn euh, su ci nit ki génnee ba këram muy diiswaat waroon na ay jikko wala ay aada yoo xam ne dana ko ci tàmm te jeex li fekk muy diiswaat euh, loolu nag ñaare li koy waral mooy nit ñi léeg-léeg dañuy bëgg ba ci biir koor gi dañu bëgg li leen rawoon ci bëccëgu koor gi dañ ko bëgg a dabu ci guddi gi da gis koo xam ne maanaam su wooree moom wax dëgg yàlla woor na dana eh man damaa woor suñ duggee ci ay jëwag yu mel noonu lenn ci émission sax du ko seetaan ci bëccëg gi waaye su guddi gi eh, ni ki noonu ci ni ñuy xëddee mbaa ni ñuy ndogoo mbaa ni ñuy mbësane itam dañ ko ci bëgg def maanaam li leen rawoon dañ ko ci bëgg a dab dabaatal ba da nga gis loo xam ne da nga xam ne kii nag lekk na lekk gópp ni ki noonu itam su weeru koor yu jàllee dañuy jàpp ne ñoom dafa dañoo xawoon a tardé maanaam lu bëree bëri leen rawoon ñu bëgg koo delloosiwaat loolu nag ab yar la euh, dañ leen xamal ne masalan su suñu borom dee teel a jëw dafa gën a garaaw ci weeru koor ndax weeru koor dafa gën a foor dafa gën ndax barab ba gën euh, na fay na fay baax di gëne noonu la fay ab di gën a di gën a yéese waaye fi wut ba soo ko defee ci dul barab booba rek mën a dara déedéet dañ leen waroon xamal ne kon weeru koor dafa gën moo tax lu baax gën faa gëne waaye itam ab safaan gën faa yéese waaye fu ñu toll na na jëw di bone na rambaaj di bone na xool lu xaraam di bone noonu lay bone ci su fekkee ne weeru kori la tabaski la wala weeru màggal la wala weeru gàmm la loolu kon dama yaakaar ne ab jàngale lay doon boo xam ne warut di dañ fu mu toll ni ñi di ci bàyyi xel waaye itam borom kër yi di ci bàyyi xel kilifa di ci bàyyi xel média bi itam di ci bàyyi xel ndax da nga koy seetlu baax baax ci yenn ci ñi nga xam ne ñooy tasi xabaar dañuy def su fekkee ne weeru koor wi ñëw na wax dëgg yàlla dañuy dañuy eh, dañuy dañuy gën a yaatal waxtaanu diine yi ak lu ci jëm waaye su weeru koor wi jàll dañ koy wàññi ba am na ñoo xam ne eh, da ngay jàpp ne daanaka ayu bis gi waxtu lañ ko ci may wala ñaari waxtu te sax léeg-léeg mën naa bañ a doon dëgg-dëgg ci na ko lislaam digle kon ku nekk am na ci wàll eh, ci yeewaat nit ñu baax a baax gën leen a laabiré ndax nit ñi soo leen gisee nii def ci weer koor nga xam ne ñu bëgg lu baax lañ ñu bëgg diine lañ waaye da ci am ñoo xam ne dëgg-dëgg dañoo xamul fañ ko war a jaar loolu itam fu ñu toll rek laabire lay doon ndax yun saasana waxoon na ko diine moom laabire rek la loo ci mën a dindi ci sa làmmiñ nga dindi ko ci te lu mën a nekk la lu ñu war a waxtaane la te lu mel nii te ñu mën koo gaaral ci weeru koor ak su dul weeru koor mën naa am suñ ko yàggee def nit ñi euh, danañ gën a bàyyi xel ci loolu xam ne ay njumte loon woo xam ne dañ cee bàyyi wut am xel rek waaye du caagi dañ ko cee jublu woon waaye ñàkk xam gi la woon wala ñàkk bàyyi xel gi su ko defee day daal di mën a day day koy daal mën a dañ daal waaye ab yar dong la euh, laabire la gindeente ak ku nekk euh, euh, wëccante xel ak sa morom te lu mën a nekk la itam yaakaar naa. Euh, jërëjëf Serigne Mbacke kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci jotaay bi ak temps bi nga xamante jël nañ ko ci yow di la ndokkeel di la ñaanal baax a baax mu mel ni kon wax nga nu lan mooy koor nan lañ ko war a defee ak kan moo ko war a def waaye itam wax nga ñu jeexiital yi nga xam ni koor war na ko am ci doomu aadama bi. waaye itam jàngatal nga ñu benn tomb bi nga xamante wax nañ ko léegi muy suñu kooree ba pare day mel ni koor googu jeexital bi mu war a def ci ñun muy ragal yàlla ga muy dimbalante ga muy yërëmante ga loolu lépp day mel ni su koor gi jàllee duñ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax comme ni war a nekk ay jeexital ci ñun ba tax sa euh, ñu ñu digle koor muy farata ci ñun waaye tam nag ni nga xam ni noonu la seexul xadim doon bégg ci weeru koor suy ñëw ba ko doon tagg ci yaa xeera day fin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan joojee ma ko doon wax wa xiiban bila adadin kon nag ñun war a noonu heure bi euh, fekk euh, kanam goo xool muy belli ci ay mbégteeki euh, ak ak i contentement waaye tam wara na fekk ñun itam heure bii suñu tab yokk comme ni nga ko waxee ni Seexul Xadim su weeru ñëwaa day tabe bu baax a baax ba ñëpp xam ni ak tabam day yokk kon nag ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant baax mboolem ñi nga xam ni ñoo jàkkaarloo woon ak ñun ci duñu seetaan ci seen site internet leerlu point com ñu jotaay leen woon boo xamante ni dañu amoon xemamteef indil leen ko ci euh, wàcc euh, ci euh, weeru koor wi di sant baax a baax Serigne Mor Fall Mbaye mi nga xam ni moom lañ jàkkaarloon ci wàllu caméra bi di sant ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon ànd ak ñun ci di ñu seetaan fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu